seraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa CNG ak équipe ba ko war a diriger ak sunu lamb lam ñu ca mosal ana kan mooy nekk président CNG ana ñan ñoo ko nar a accompagner loolee la sunu lamb xëy mosal ñu si astuut li olof di wax naan junju doy na borom xel loole la sunu lamb def kan lañu njortu ne mooy nekk ci boppal CNG boobee nekk président ba ñu ne ñu un DG de société à la tête ki fas yéene nekk président CNG bii daal am na direction bu mu ba noppi directeur général jiite bile CNG kooku kan la nan la tudd journal ba ne junju doy xel ana lan ngeen xamaat ci équipe bu CNG l'entrée am nay jigéen yoo xam ne ñu ngi yëngu ci làmb te njort nañ ne leen gis ci bile bureau CNG ku wax jigéen ñi yëngu ci làmb nag faa nga wax Evelyne Diatta faa nga wax Isabelle Sambo ñaar ñooñee xam nañ leen ci làmb ci lañu yëngu journal ba ne li am ba des daal mooy lutte olympique bi Isabelle Sambo lañu njort ne moo ko yore bu dee lutte simple lan ngeen ca xalaat ñu ne diggante Manga 2 wala Yékini directeur technique national bi ñu ne Khalifa cent francs gannaaw confirmé nañ directeur technique national ba nag war nañ cee mën a sànni ay kàddu bilee directeur technique national mission bu njëkk boo moytuwul mooy raxas Ambroise Sarr entraîneur bi nga xam ne DTN bi fi nekkoon Abdou Badji moo ko nommé woon boo moytuwul Khalifa Sow dana ko bale indi keneen journal ba rax ca dolli ne mbooleem ñi Abdou Badji nommé woon boo moytuwul Khalifa Sow dana leen soppi bilee CNG bu bees jort nañ ne dana da bu nu jàllee ca diggante Boy Niang 2 ak Tapha la journal ba xëy xamle mooy quatre adversaires moo leen boole Boy Niang 2 ak Tapha dañoo bokk ñeenti adversaires yoo mën nañ caa jàpp saa kajoor numéro 2 Zos Guy gi ak Lac de Guiers bu dee Tapha Tine bëre naag ñeent perte ci digganteem ak Lac de Guiers 2 moom it perte ci digganteem ak Lac de loolee moo waral journal ba xëy ne quatre adversaires yooyu mooy seen adversaire en ndax ca dolli ne leneen la am en mooy seen treize victoire ya Boy ci treize victoire la taxawee Tapha ci treize victoire la taxawee waaye seen bilee combat bu match nul amul dana am ku ci am victoire am ku des ci treize 14 victoire ya bu nu jàllee ca combat de rêve ba combat bu neex ba war a dox ci diggante Modou Anta ak Diène Kaïré la journal ba xam ndax ngir tàll loxo ay magam wala déet ba combat ba taxawee ñu bari dañoo ne Modou Anta mi nattukaay la ci Diène Kaïré Diène Kaïré bu jaaree ci kawam ba jàll magam yi bu ñëboo préparé te xam ne seen kaw la jëm si loolee moo waral journal ba xamle ne gros test la moom Diène Kaïré 9 victoire la am dixième ba lay wëri ci digganteem ak li gën a fas ci yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah.